ndax fi réew mi toll ñii dañ ma xam ci social ma juddu màgg ak ñoo ñu màgg njaboot màgg xarit màgg ñooñu ba léegi ñi ngi taxaw di ma xaar ñi ma xam ci Vaillante bi ma attaqué Vaillante bi rek huit ans ba léegi lu ma am jox naa ko askan wi waaye ba léegi day gën di évoluer day gën di yokk day gën di wër man sama social international la nekkatul bu ndaw ci koo xam ne état jàppalewu ko opposition jàppalewu ko moom rek mooy dem ak doole boppam mais tey moo ma may li ma am ci réew mi ndax xol boo ubbi fekk ci Soxna de Saliou ñëpp am yéene ci man mais xëy na ñàkkul na ñu ngi koy gis waaye ñu ngi gën a lancer message rek. waaw est-ce que mën nga wax bi koor gi tàmbali ba léegi maa ngi sosiyal tey na la boo xam ne rek. dañu war a def suba ak ginnaaw suba ndax du ma tëj ndax saa yu koor gi jotee ñu ngi ci suukar si ñu ngi ci ndogu yi ñu ngi ci jàkka yi ñu ngi fépp kon xam nga ñu chaque jour ñu social bu dul koor it soxnaay de mi ngi ci social ndax mi ngi ci ordonnance mu ngi ci ñu am problème mu feebar ñu am problème mu location ñu am problème parce que ci lañ ma xam ku am looy jàmbar rek yaakaar nga ne ci man nga war a ñëw te du ma ci daw dara ah. damay def lu ma mën di xaar tamit ndax tey am na ñu ma participer ñoo xam ne ñu ngi may bàyyi xel te ñàkkul ne xam naa am na lu yéene yéen ñi boo leen màggee di ngeen boo leen amee di ngeen ma jàppale ndax gis ngeen kon gu ñu bu ñu xeeb la ñuy def mënuma démarrer l'essentiel daal presque que ne douze millions bu ñu umee koor ak léegi man ñu ma xamagum yu ma jàppagum. dégg nga mais mais du dara ci jox ko jaamu yàlla nit moo ëpp valeur boobu gor si toog. mënut a ñaani mënul jooy te yor njaboot nga fekk ko fa ak ceeb fekk ko fa ak diwlin kenn ku ne xam ne diwlin amul suukar amul maa ngi damaa yónnee suukar ba bi am na suukar bu may xaar ba léegi mënuma ci xaar jot ah maa ngi dama jot na ay ay paquet suukar bu goroos suukar di ko joxe avant mais tey mu ngi nii mais nag sant yàlla parce que man dama ci nekk à l'aise ah li may def nii yàqaluma lenn tamit dama ci nekk à ah, l'aise mais bu dee bu dee na dafa nekk ci sa deret na xam nga nekkul ci sa deret moo lay jaaxal ma wala looy doog a tàmbali waaw suukar meew fromage fromage saucisson merguez meew bu neex meew du ma wax benn turu meew ndax du sponsor waaye kon ma wax la ay turu meew joxe ay ay ay ay vitale joxe ay café joxe ay ay ay ay genre fraîche ay genre yu nga xam ni tey da xale yi dañ koy gis ci osan wala di ko gis nit di ko yor ñuy jël butéel yi wala di ko foto parce que am na ñoo xam ne xamaguñu bànneexu amuru tey yenn yenn objet yu bari pour ñu koy gis mais tey danga war a fekk nit ñi nga seppi leen ci loolu indi leen li gën a neex li nga xam dañ ko daan gis di ko ragal a jël ndax du leen mata man loolu laay joxe man mburoog be laay ndogo ak café Touba wala thon man yooyu laay ndogu te su may ndogu damay génn ci buntu kër gi ndogu à public woo taal ndongo yi woo xale yi woo ñi nga xam dañuy jaay nekk ci mbedd mi man ñooñu laa am di ndogu ak ñoom man man man man dund boobu moo ma neex ko léegi nag fi ma fekkul dara laa bëgg a def dara ak nga xam ne daa des gor te munta laaji te jaboot na te wi sori wala weer wi dee na yëguñu weer bu dee yëguñu weer am na gor ñu sonn naa ah. dañoo munta tàllal loxo mënuñoo yuuxu damaa xam kër yi ndax damay waxtaan ak ñoom. ñoom ñoom ñoom foog waa réew mi am nañu baax nag am nañu baax mais daal man social laa bëgg man sama don la daal dama ko bëgg daal xaw ma lan la. man soxna Aïda Saliou laa tudd vaillante du peuple taalibe Serigne Saliou laa su ma nekkee taalibe Serigne Saliou man bu ma amul yërmande mënu ma def lu baax mënu ma joxe kon damay desal sama sëriñ bi sëriñ bi bernde la xam joxe. partager bokk bëgg bokk pas-pas man loolu laa objet objet boobu laa am te ku may ñaanal ñaanal ma ma am lu ma jox ñëpp waay ndax dañ maa yaakaar te bëgguma yaakaar yi tas waaye di ñaanal sama waa keppaaru Soxna Aïda Saliou bi nga xam ne tey wër na àdduna ay pamel la ay ku nekk bëgg na ci bokk ku ne bëgg naa jaxasoo ak ñun te ñu ngi may jàppale parce que kenn mënul lii kenn mënul lii mais jàppale nañ ma ci seen doole waaye jàppale nañ ma ci xam-xam bu sell bi dinañ ma seetal koo xam ne sonn na te man xaw ko ñu déy ma ndànk ne ma kii de yelloo na ceeb kii de yelloo na diwlin kii yelloo na ordonnance kii demal nga seeti ko kii de dafa nekk ci ay xat-xat demal nga waxtaan ak moom na waxtaan sax social la ah. waxtaan ak nit ki ba delloo si ko social la ah nit am wàññeeku wàññeeku këram yaa xam yaayam la ndax moo ko àdduna ànd kuy dund bànneex di dund ngénte da dund dëj mu bett la dal ci sa kaw kooku dañ fa war a teel a dem teel koo sécuriser teel koo may doole dalalal ko ay ganam dalalal ko njabootam seet la la ñuy def ca kër ga ba moom bu ximmili ko fekk lépp jekk loolu social la lu ñu yaakaar ne ceeb la rek ak diwlin lii moo ci damay yaay damay yaay te naa metti xam naa jaboot bu war a def deful nan lay mel judduwuma rek doon soxna Aïda Saliou damaa judd am fu ma jaar màgg da sëy te ba ma tuut fa ma duggoon à âge de mariage ba léegi maa nga fa te xam naa tàmbali jeeg bu ndaw war a dem marché war a dolli yardoom mu feebar xii xale mënul tenir xiif xale mënul xam xaaral ma ñëw xale xamul xaaral ma lijjanti xale bu xiifee rek day jooy te bu jooyee rek dafa war a lekk xam naa ko ñam naa ko daloon na ma kon li ma war mooy ku ko dundul doo ko xam da nga koy dund maîtriser ko booy jaar da ngay xam ci yoon wi ngay teg sa tànk ba tax na maa ngi naan bu kenn xeeb loo war a def jaboot dafa mett te du ñëpp a mën a tàllal loxo te léegi buntu kër yi dañ koy tëj ak appartement yi nit ñi amatuñu fu ñuy dem di diis seen soxla nañ ubbi porte yi yaatal wala ñu fekk fi ñu ko war a joxe ñu joxe ko fa bu ñu koy laaj xam fi ñu jëm mais yàlla baax na. ñu ngi lay sant di la gërëm merci beaucoup. tey moom foog ñu jël sa benn doom. damaa kontaan parce que lii Ouzin. Vieux Mbaye. waaw kër gi lañ bokk. ndeysaan ndax ñun ñoo bokk ñun ay parcelles waa lañ. dëgg yàlla. ñun parcelle lañ am. ndeysaan waaw. daanaka tey dañoo woote social. waaw chaque jour sax social la ci. waaw waaw ndax suñu xëyee sax bu ñu amee mille francs dañ koy social moom. waaye daal. nañu nañu gën a nañu gën a nañu gën li mbégte la daal. Mm-hmm. surprise bi dafa dafa neex ci man. waaw loolu dañu ma kaa wuyu soo man di ma ñëw. wallaay gisoo ki sax maa ngi naan ko yow. yow bett nga mun naa ba kii moom moo woo. xam nga mi ngi noonu. Mm-hmm. man dama ko daan def rek comme nga privé. Mm-hmm. mais li ñu naan lu nëpp xeeñ. waaw nekk lu nëpp xeeñ. waaw waaw ñëwal. ba tax na daal. nañu rek ànd li may wax naan bay sawaar loo bay bu ko xeeb social jarul a xeeb lii nga def sa social yaa ngi ñuy socialal ci sa baat yaa ngi ñuy ci ñu ree yaa ngi ñuy socialal ci mm-hmm. bëyit boo xamante ne ni gone du ko tari kon lii nga nu defal ci sa social ci sa jëmm ji yàlla na ko yàlla yëg sëriñ bi mën naa fay yàlla na sëriñ bi fay ndax li nga yëkkati nii daanaka fi mu ne su ma ñemewut woon ak maa lii mu ci loo yëgut man dama yaakaar ni sax xubbu yeeg kii ñoo la yónni man nag maa léemu ndax doy na waar daal. léemu kat bàyyi dafa toog di léemu foofu ñu woowee ma ci moom. ma ñëw ci yow dafa ma de man boo dee wax. barke sëñ lool barke sëñ bi. damay rama ci daw de ay. jàppale xoolal wuy ma jàppal bu baax. xam nga ni da nga war a jàpp. waaw eh tubaarkalla macha allah ku téye jëmba bu dee da lay téye da lay téye. man daal li ma la wax ci gàttal mooy. ah Aïda xanaa lu ma yëgut wala dara waaye lépp lu yëg. lépp nga yëg jàppal ni maa ngi ci ginnaaw maa ngi ci incha allah waaw. barkal la mbokk yaay nañ samba baaxkat bi di yàqu ko ko yàqu aar dëgg la babel euh, yaa ngi jël Aïda Aïda may doye Aïda Aïda bi muy def lii du tey ba muy jàppale doomu aadama yi du tey ba muy def social sëriñ Salim Mbacke ku mu àndal doo dellu ginnaaw keroog bala sëriñ sii sa tuddee doom téeméeri géwal wër la ñeent fukki géwal wër la bi ma tourné dang na ma Ousseyn daba booy la ko tuddoon bi ma tourné dang na ma Ousseyn Mbaye jëkk-jëkk yëkkati lu bari na ma am ñun ak yow ñoo bokk lépp comme ni ko ni nga ko waxee léegi ñoo bokk Serigne Fallou ñoo bokk Serigne Saliou ñoo bokk Sénégal ñoo bokk li ñuy mbëbët waaye togg ñam joxe dong la sëriñ Saliou defee ni mu def Cheikh Béthio Thioune berndeel ne ku ma nuyu man Serigne Saliou nuyu nga Cheikh Béthio ku ma gis gis nga Cheikh Béthio xam nga lu tax mu def ko loolu togg ñam joxe bu doon tey nit day def lu làqatu kenn kenn nit war def luy làqatu loo war a def dafa war a feeñ xam nga lu tax kon yàlla nëbbuñu Seydina Muhammad te yàlla nëbbuñu ni Seydina Muhammad mooy gën gi mbindéef moo gën ñëpp ku ma bind man yàlla kii moo ci gën kon bu ko neexoon mu nëbbuñu ko le bienfait n'est jamais perdu ndayat baay kafe la waaye doomay judd suukar boppam. Ousseyn maa fekkee la police bëgg. waaw kii da doon xëy. Mhm. yor benn dix mille francs mhm. war ko jox ñoom màgget ak ñoom faama. Mhm. taxaw si suuf. xool ñan ñoo amul dépense. mu jox leen ko dañoo dëkk ay ati ati ati at sama ngénte doom ak sama lépp moom laa ko tegoon si loxoom. moom moo géré yëpp sama ngénte doom bi ma tuddee député moom moo yóbbu lépp doon nit koo xam ni barke Seydina Mohamed doyen lu tax ma indi leen fi xamu leen kii sax social benn waaye mos nañ ko génnee këram ma ñëw daw wax ko mu defa ne sama nijaay la ñu daw ne noo dinaa ko wax euh, mu ne billaahi dinaa ko wax ñu génnee ko bagage yëpp taxaw bu may wax loolu sama rangoñ day tuur du question ceeb ak dëwlin wala xaalis bi ñu lay may mais waajooju daf ma kii keroog dama ne kii walliwu la est-ce que ñaan googu topp ko ak sëñ saaliw xam nga lu ma def fekk waa ji toog ni viens mu ñëw kaay compté ne ko demal uti léegi si saa si si saa si quarante mille fois trois san vingt mille mun na ko demal nga uti léegi ñetti weer lu laas la jox ko say soxla oh. te yëpp dañ ko filmé may nga jox ko ñi la yaakaar dese songor ku ko tàccu ma may la dindi doyen doyen Aïda laay wayal Aïda Saliou kenn jayu la eh, kenn naxu la lañ la waxal yawa yawa yawa yawa yawa ñëpp nee nañu yawa yawa yawa yawa yawa nee nañu yawa la force sociale bëgg sëñ saaliwu borom njur borom jàppal borom xàmboon borom dookaa ne ko niroowu ñoom te bokkoog ñoom yi feem du yàgg ba ngay ñoom ay na man yaa man yaa man ndeyi ñu benn te bàyyi wute yaa man ne ko niroowu ñoom bokkoog ñoom yi feem mooy yaayi saaliwu mooy yaayi saaliwu mooy yaayi saaliwu saali wooy sama xarit tàccu leen lii basan basan loolu foo jaar ñu wax ko doyen donc asalaamaaleykum les internautes qui nous suivent à travers Sen Miroir et Diaspora News TV ak euh, Dakar People donc ñu ngi fi nga xamante ne mooy parcelle si kër Soxna Aïda Saliou mu doon def li nga xamante ne ay dons alimentaires ci weeru koor gii nii donc képp ku wax weeru koor wax social donc muy moment boo xamante ni ci social kese lay dox social mooy li nga xamante ni moo ko yitteel donc ñu gis tamit ñi nga xam ne ay soppeem lañu ay comédiens yoo xamante ni tamit ak ay taasukat artistes donc lépp muy booleew ci artistes ñëw tamit di ko. di ko di ko di ko kii aussi bisam bi nii donc maa ngi gis doyen on le présente plus aussi doyen lan moo waraloon sa teewaay fii tey. waaw ñu ngi leen nuyu bu baax baax di euh, kontaan ci teewaay bi fii nga xam ni mooy kër Aida Saliou mm-hmm. waaw teewaay bi nag du dara lu dul Aida euh, dafa nekk nit ku baax. Mm-hmm. nekk nitu nit ñi. Euh, tàmm nañ ko ci nit ñi kenn ko ci ne gis na lu baax li muy def. Hmm. ak lu rafet li muy def ci social bi muy yëngu. Hmm. vraiment ñu nekk nag euh, ñoo xam ni ñenn lañ ci ay nitam. Hmm. Euh, déplacé wu ñëw tey euh, seet si ko. mais vraiment bi ñu ñëwee tey kontaan nañu. fekk nañ ko vraiment mu mu mu mu muy def comme nam ko daan nam ko doon defee. jël ay ceeb jël ay diw di jox jaami yàlla yi ci barke weeru koor yi. donc daal ay de koy wax rek mooy fi mu teg tànkam foofu la. boo boo nee sëñ Saliou moo ma doy. loolu daa war a feeñ ci say jëf te Aida macha allah loolu mu ngi feeñ ci ay jëfam ndax euh, lu baax rek lay def loolu nag dañ ko ciy ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér yokk ko ba lu baax li muy def mu gën ko mën ci barke max ne gis ay soxna yu bëri tamit ñëw nañ euh, fekk ko fi fi nga xam mooy biir këram loolu si ban jàngat ban jàngat nga si mën def jàngat bi ma ci gis mooy gis nga doomu aadama yi am nañ fulla ko doy naka duñ jublu mukk ci ku baaxul non non non non bu doon bu ñëwee kër Aida mu toroxal leen wala mu ni ca bitti wala mu ñàkk leen mm. kon kenn du fi ñëw waaye nit su demee fenn dellu fa rek jàmm la fa gis Aida leen yaatal rek wanni leen ci kër ngeen bokk xëcc leen teg leen ci ci ci ci wetam mm. ñoom it mu ngi noonu lu Aida yëkkati ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ko moo tax lii rek exemple la ci jigéen ñi ci àdduna bi mm. képp ku ci dëkk ci koñ wala ci gox fexeel ba am ak ñoom jàmm ndax dëkkandoo mooy mbokk mooy lépp tey loolu Aïda moom la confirmé kon euh, loolu déjà dafa nekk lu rëy loo xam ne njàngat la ci àdduna bi. ah doyen maa ngi lay sant di la gërëm. moo dem si sama grand bi. grand bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay sant yàlla bu baax. defe naa ni Ouzin macha allah ak Aïda Saliou ak Vieux yàgg na. Mm-hmm. boobu defe naa ni Sénégal kenn xamu ko. Mm-hmm. Aïda Saliou. ñu bokkoon benn kër. muy sunu jigéen di sunu xarit di nit ku baax macha allah yàgg def social doomu ñay nag kenn du ko ñaanal rey dañ koy ñaanal gudd fan ayda yan na gudd fan wax ji du bari yan na ko yàgg mën ci barkeb Serigne Saliou donc euh, lan nga koy gën a ñaax si li nga xam mooy si acte bi commencé di ko def nii tout tout le xam nga mbaax donnante la doom doo gis ndey ja lay nul mbaax donnante la Aïda lii da koo naam mbaax da koo donn waaye nag daf ko donn ci koo xamante ne muy wasilam muy Serigne Saliou Serigne Saliou ku ne xam na ni bernder nag la xam togg ñam joxe bëgg xale yi bëgg partager ayda daal lu ñu koy ñaanal yàlla mooy yàlla na gën a yokk nit buy def lu baax danga koy ñaanal mu gën a yokk mm. ci barkeb Serigne Saliou yàlla na yëpp yokk non nge neen des fois nge neen nit bu baaxee il faut ñu dem ba ci ay mbokkam laaj ko ba xam baax na donc euh, est-ce que seere boobu noonu bi nga xamante ni moom ngeen di joxe mooy li nga xam xamante muy jógee si ay mbokkam aussi ay mbokkam bu paasewul ñun ñi nga xam ni ay artistes la ñu àdduna yëpp xam nu Sénégal kenn dootu fi présenté Ouzin Mbaye kenn dootu fi présenté Vieux Mbaye mm. macha allah ñuy yàgg ñun nu ngénte ko wasinul bunt bu nu ubbi ñu fëggal ni boo gisee ñu sol suñuy dàll ñëw dëkkandoo bu yàgg la ak mbokk ak deret du wayaan du ñëw ceeb du diwlin ndax am nañ ko sunuy kër lii muy def nii ñun dañ koy def kon dañoo ñëw di ko féliciter di ko encourager mm. ci li muy def nii bu mu ko bàyyi xam nga lu tax mus gàtt geen ko gudd mm. lu tax mus gàtt geen ko gudd wax ma ko yàlla la nañ ko bàyyi ak yàlla ay Saliou. jaajëf mais looy doxandoo tey looy doxandoo parce que ay 1 million ngay doxandoo téléphone beeg yooyu noonu. waaw waaw gis nga waaw mais ah, ah. xam nga dimanche la liggéeyu ma. Eh? Colobane macha allah. mais gis naa nga Moussa wone téléphone ne lii ñaata la ñu ne la temps la lii ñaata mu lay temps waaw noonu la <laughs> parce que liggéey dañuy wane ne aar rek du liggéey. dëgg la artiste da nga war a am métier. pour à door di aar nga am beneen métier man ku ne xam na ni maa ngi Colobane. àddina yëpp xam nañ ko man liggéeykat laa moo tax ma ne leen li Aïda di def ñun sax dañ koy def du ceeb du diwlin moo nu fi indi mais pour encourager ko féliciter ko ci li muy def mm. mu gën a yokk ci barkeb Serigne Saliou maa ngi lay sant jaajëf jaajëf <laughs> baax na doy na kii rek baax na wala baax